السلام عليكم ورحمة الله ما عندي في شيء داري في المستقبل جو سام بق سام خارج يوم في غير وقت أنا قوم وقت أنا مين غير ما أبغى عمر دي بديكو باي خريب نه مم بقولا تالي بلا برام خبر xëy na nag làmmiñam situt dama koy tooñ ne ko daanaka ab luuga rek ca ca dafa dër ko defee ci waxin wi nag léeg-léeg mu am nu muy waxee nit ñi duñ ko dégg ñu firee ko neneen euh, wala ñu dagg ci wax ji jàllale ci loo xam ne du bokk xëy na la mu jublu waaw wallahi nitu xaal yi léeg-léeg mu waxee noo xam ne jëmbut xaal ba muy toll ak lam cay wax daanu wax rek loolu buruñu ko waaye tey jii nag damaa bëgg mu leer nit ñi loolu ñu jàpp ne dafa wax ne mm. wërdul xaatam bi mm. mooy yu mu accepté ne mooy wërdi bi mm. yi gis mu mel ne da ko woyefal mm. waxtaan naa ceeg moom néewut foofu na ko waxal boobu na ngeen dikku ko ndax wirdi yii ñu jàpp ne da ko accepté wut yooyu mooy wirdi yi doomi Sëñ Tuubaa yëpp doon benn bii nga xam ne xasbunallaahu wa ni'mal wakiil ñaari téeméer la mosuma gis sëñ sang bi wirdu lu boobu te mooy ak mat sëñ ma Lamin Jóob nee na ko moom la sëñ mujj yeesal bi nga xam ne it moom la sëñ Saliou yoroon te sëñ sëtu jaxate joxoon ko tam yeesalaat koy sëñ Mbàkke Buso woow it mooy yu sëñ Abdu Xaadir yoon te nee nga jox na la waaw jox na ko doomu jox la wér man ta ànd ak nga di ko saboote naan baax déedéet wala woowa du du baax wala mm-hmm, nangam déedéet wallaahi waxalal sa bopp ñi leeral ko bu baax a baax ba murid di xam fi nga ne waaw incha allah mm. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu fataahu wahabu yaa rasaqu yaa maliki يفتح وهب لي وارزقني يمكن الانادي في اجل عاجلا بالبشر محمد حتى اقيم لدين الله اركانا بشر جوعي بتوبة واحمني وقني هذا الورى وتجب لي سماسك انا لك السماء والاراضي والهواء بيا مشارك لي رب مشك وانا اجب وسلم سيدنا حسن اجب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ngi siyaare نيب دي di jëdal ci siyaare bi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ci loxoom si am sa son ni mu daal di doy sëkkoon xam sëñ sama kan maa ngi lay jégalu jéego yi waaw lay lay lay waaw waaw waaw waaw boo ma ci wooyu nit mu ñëw waaw waaw waaw waaw dégg may laaj maanaam maanaam nit ñi moom damaa bari ay ñu sofaanoog man lool nga xamante ne samay wax dañ koy daggate daggate ba nga xamante ne ne day wax leneen montage yi waaw waaye man de li ma wax mooy ah wérdi yëpp ñetti wérdi yooyu yëpp wérdi yi xam ne moom ñu tudde maaxuus yëpp de maaxuusun minallaahi la bi waasilati moo na ko jox ne kat ci yonent bi bi la ci yàlla la jógee jaar ci séntu bi ci waxtaan wa ngeen fet li loolu li nga Cheikh Abdou ma ko ma ma ma bi. ni ma ko joxe sax joxe mu neex la. yor yor daa fa ñëw ñii ànd rek nuuru. Mm-hmm. wax ko wax dama bëgg maaxuus. mu ne um um ñu ba si yàgg mu ne bërit dugg si néegam indi eh, nusxa bi ñëw taxaw tugudde ñëw taxaw leeral ma ko ba noppi ñaanal ma soog soog taxaw xam nga sax boobu nag xafif bi la. xafif bii xafif bii mooy sa njiili gànnaar ko bind. mais yi sax bi man waxul ku nekk waaye bi man ba tey jii xam nga ko kon kon moom. maanaam ci ci kon ku wax loolu kay ci waxtaan wa leer nañ ñu ne kon nangu na ko si bu moom suñ Bàmba moo ma ko jox léegi léegi léegi gi nag maanaam tey ci xaatim moom am naa ko te suñ te suñ Saliou naa ko wax naa ci ay njëriñam dama ci gis man ak man yi ma koy jox waaye loolu waxut ne nag kat xaatim bi donc la. foofu foofu doomu seen seen bu mat a leeral. waaw mooy doomu si Tuubaa yi ku ñëw ci ñoom laaj leen wérd. waaw ak mal bi la lay jox wala xatif bi. waaw boo yoree bii nga wax nag xatim bi. ne ko damaa bëggoon bii dama cee bëgg ndigal. Mm. danaan la jox naa li ci ndigal jox la ko. waaw waaye boo ko laajoon rek. Mm. du la jox boobu yee la lay jox. waaw ñoom ñëpp man xam naa leen noonu lañ doon doxee. waaw kon yow da ngaa am bii. Mm. laaj ko ci ndigal mu jox la ko. kon am nga ci ndigal. alhamdulilah. kon nag sëñ Abdou Khadir moo joxoon. xafiif xafiif bi. bii nga jëlal ko sa bopp dem ba sëñ Saliou laaj ko ñu digal mu jox la ko. nga xamante ne ginnaaw koy ci xafiif bi moom. Mm-hmm. Eh, sëñ Abdou Khadir ma ko jox. Mm-hmm. maa dem laaj ko jox na ma ko loolu xanaa kon ixtiraaf dëgg la moom na na na na dëgg yàlla maanaam si bu xaji rek boo ko xasi tudd noonu ca des yëpp noonu la mel yëpp nee naa yëpp nee naa wa ni ñoo ko doon rek waaye ci ca waxtaan nee naa yëpp kat ma xuusun la minallaahi bi waasi tafsir salaam yëpp sëñ Tuubaa moo na ko jox ne ne yàlla ko jox ne ci ne ci cont bi leer nit ñi daal waaw mu leer mooy ah. yëpp wér gi sëñ bi de. yëpp la wax ko démb de. li ci am solo nag dëgg dëgg te nit ñi war ko xam. ah mooy yii ngeen gën a gis mu siiw muy xaatam bi ak mal ak ak mal ak mal bi. mooy yi doomi sëñ Tuubaa yi doon yor di ko jëfandikoo di ko joxe. waaw kay bii nag ñu néew ko am. waaw waaye ku ci dem yóbbu ko ci doomi sëñ Tuubaa laaj ko ko mu jox la ko waaye dawuñu ko joxe. bii nga yor léegi nag yow da nga yor dem ci sëñ Saliou laaj ko mu jox la ko looloo la ci jotali kon yow ñaari doomi sëñ Tuubaa jox nañ ci kut be bi nga demee si Abdou Khadir laa jóg wan wér da nga ko def wér moo ci kuut moo génn joxal la boppam xafis bi ci kuut kon loolu leer na si matulaay it jox ko waaye damaa jógut dëkk yi hmm. dana la jox naa ndigal waaw waaw moom it bu daa joxe bii lay joxe xafis bi bii moom bii hmm. ngay wax nii hmm. muy xaatam bi mosumaa ji sëñ Saliou joxe ko mosuma gis suñu sëriñ bi joxe ko. Mm. mosuma gis suñu bilaat joxe ko. Mm. kenn ci ñoom joxe ko. Mm. te ñi ciy jëfandikoo ñëpp wérdu bi woowu la ñuy jëfandikoo. mooy xafif bi wala akmal bi. bii ngay wax nag. ku ci yor mm. won ko ko mu xool mbir yëfi sëñ bi mm. boo ko ne dama cee bëgg ndigal te muy mm. doomi sëñ bi dala ciy jox ndigal waaye mag ñëpp yee lañ yoroon dégg bii ah. nag ku ko yor it ko ci wàññiwul dara waaye nag di su ko doyloo ba tax nga sàgganee wala nga ne yee naa nga war a naan sëñ bi loolu nag laa bëgg mu leer ci murid yi bañ xam am na fi ngeen yeneen sama benn xale daa ñëw fii man ne ma damaa génn ñu ne ma kat xafif bi baax na ci rab ma ne ko ma ne ko jëlal xafi xafi waaw baax na ci rab mën na ko jëlal ci fan yi ci fan na ku mu woo ne ma damaa bëgg du ko xalwa ma ne ko jëlal maa ko du xam rek sëñ bi ne ko fi noonu ginnaaw lañ xam nañ ne moo nu ko jox ne mi ngi ci yàlla jaar ci bi tur yàlla dëgg nga Eh, jeex eh, eh, na maanaam gi ko sëñ bi kay nit ñi maanaam waa nit ñi man fu ma waxee dara waaye waaye waaye waaye sëñ Moussa waaye waaye sëñ Moussa waaw lii rek a ci am solo waaw leeral dafa baax wallahi leeral moom day mhm. dindi lu bëree bëri waaw tuuma li mu Yorna, Yorna, leer na leer na kay moom yor na yor na xafiif di ko jëfandikoo waaye yàqut ci xafiif ba te yooyu yooyu mu nangu nag. Mm. te sëñ Abdou Khadir joxoon ko ko. Mm. te sëñ ba nga jox boobu la. Mm. na ngeen xam doomu sëñ Tuubaa yëpp yooyu lañ doon joxe. biir biir du sëñ bi la. Oh, sëñ bi man ngaa dem sax ba gisaat weneen bu nëbbu woon boo xam day xëy xëy feeñaat ndax am ci ay xasaayid ak i awraat kenn xamul nu mu toll. dégg naa wu feeñ la woo xam ne mag ñi bëri wutoon ñu ko ci daa yor waaye ku ko yor nag baax na. boo ko ca dollee baax na. Mm, mm. waaye yee nag. Mm. mooy yi nga xam ne moom la ñëpp xamal. sukkur ak man bi ak sukkur ko defee nag. moom suñu musaam yi. wax na lu leer. ñii la jël ak ñii jaxase ay wax na xam ne lii mu wax leer na. waaw mu wax leer na. <laughs> confirmé ko mu gën a wér. ñu lay bi kay. ñu lay toog yooyu yooyu ca waxtaan wa neewoon naa mi ngi jóge ci ci jaar ci yonent bi ñëw ci Sëñ Tuubaa waxoon naa fa fa it ba am solo Sëñ Tuubaa bu dema woon góor njaay mooy wérd wi dee ko ko ko ko wérd nangam. moom lay wérd ban. a ah, ah man de la man. rek ngeen wax dëgg yàlla da ngaa génn. góor njaay góor ne góor njaay moo ko <laughs> wérd loolu wérd ko man. wallaahi laa wallaahi waaye yow nag ndegam si Abdou Khadir la joxoon xafi. da ngaa a war a wër leen ak sëñ Tuubaa ni nga war a def boo wirdee xafi ba noppi waaw ab sa xaatam bi tëjee kooku mu di ñaan loolu laa def di dal def noonu yii bul bàyyi wenn déedéet du ma da nga ca amoon ndigal bi waaw dalaa xafif ba di nag yaa waaw daa dugg ci néegam génn am yitte sax loolu yitte loolu waaw waaw waaw waaw